ca mi ngi noonu mbokk yi nga xam ne yéen a ngi suivre chaîne bu mag bi di TS TV di Teranga Sénégal les deux jumeaux bu ngeen ñu gisee fii ñu nekk nag ñu ngi door a ci Euh, dëkk bi nga xam ne ñu ngi koy wax Kirène. ginnaaw bi leen euh, nuyoo mbokk yi nga xam ne yéen a ngi suivre chaîne bii di Teranga Sénégal les jumeaux nag euh, ñëw nañu fii nga xam ne moom mooy Ngàdd. deux jumeaux egsi nañu fi nga xam ne moom mooy Tivaouane ñi ngi fii ci diwaanu Mbour Géej muy jéey ji nga xam ne xewoon na fi. les jumeaux nag bu ngeen ñu gisee fii tey ñi ngi fi nga xam ne moom mooy lew na Léona lew na caw nag dañu fee xibaar léegi li nga xam ne moom mooy naqar ak tiis. les jumeaux nag egsiwaat nañu fi nga xam ne moom Timbalit ci mbalit mi nga xamné ne mi ngi nek ci yoonu euh, apéage bi euh, mbalit mi nak euh, dañ ñoo xibar légui né amna xalé bu jigen bo xamné ay atam mi ngi tollu ci vingt deux ans dañ ko fekk ci mbalit mi yew nañu tànk yi yeew loxo yi tak li nga xam mom moy mooy gi waye nak biko test TV yëgee bi ex egsi ni ñi ngi dajé nga mom moy sapeur pompier ak police ñu jël xalé bu jigen bi di génn nak damay and ak sama jiné cameraman ñu dem ba ci place bi dem ci mbalit mi xool ñan lañ fa mën a sékkal waxtaan xale bu jigéen bi ban anam lañ ko fa indee ak ban anam la ñu takkee tànk yi takk gémmañ gi de deux jumeaux egsi nañu ci biir euh, dëkk bi nga xam ne moom mooy Ndieye euh, tey nag les jumeaux ñi ngi fii nga xam ne moom mooy euh, fii nga xam ne moom mooy Silma tey nag les deux jumeaux ñi ngi fii nga xam ne moom mooy commissariat brigade bi nekk fi nga xam ne moom mooy Parcelles asseni tey nag dugg nañu fii nga xam ne moom mooy Daaru Salaam yi nga xam ne xewoon na fi place bii ñu taxaw nag euh, ki nga xam ne moom mooy Ndiaga Ndiaye euh, ci place bii la nekkoon euh, di wecciwaate muy banque bi ki nga xam ne def na ñaawte fii la njëkk a dugg Euh, jàppante feek moom dóor ko li nga xam ne moom mooy bal waa ji di Ndiaga Ndiaye nag jotoo ñàkk bakkanam waaye ci magasin bi ñu dendal euh, ndaw loo xam ne ñi ngi koy wax tamit euh, ngañ moom it doon génn di ñëw di jàppale ki nga xam ne moom mooy Ndiaga si la ko dóoraat bal ci tànk bi muy riposté mu dóoraat ko bal ci dënn bi moom mooy ñaari bal ñaar ñooñu nag jot a ñàkkagum seen bakkan muy Ndiaga Ndiaye mi nga xam ne place am la ñu taxaw nii ba jamono jii ñuy wax ak yéen ci ay information néewam mi ngi foofu nga xam ne moom mooy hôpital bu Grand Mbour dara du leen ci ump dinañ leen ko toppal ak chaîne bu mag bii di Teranga Sénégal di TS TV ak les deux jumeaux. man Jogo. Jogo nga tudd. waaw. Euh, tey waa TS TV ñëwoon fii ci marché central bu mbuur bëggoon a xam jéye ji nan la xewee ndax euh, ki ñu faat euh, yow ak place am yéen a jàkkaarloo. ñoo jàkkaarloo moom mhm. ki ñu faat ñëw ci fee ni ko faatee. noonu ni ñu moom moom moom bi bi bi mhm. mu nee bi bi mu njëkk sama patron mu ngi ci biir ñëpp a ngi ci biir man maa maa jug fii gaa yi ci biir maa njëkk a gis waaj daal di daw gis bi ko njëkk a songee si la attaqué waaj dem naa ba téye si yére bi waaw bi ñu téye man te man foog ma waaj yor na matériel xamu si woon dara ma si laa no xamu si waaj yor na matériel dara xamu si woon dara après si lañ liggéey jakarta bi teeg maag Pape Gueye maag beneen boobu ne fee ne après boobu fekk njaka njaka moog njaka rek njaka bàyyiwul ñoom ñaar ñoom ñaar di xëccoo ba côté bii nii man njaga njaga téye ko xojee xojee ko bi nga xojee ginnaaw si la si la ko waa ji dóoree balu ginnaaw njaga avance ba nii daa daan sama biir place fële la sama sama patron daa koy yóbbu hôpital. kon moom biñ ko dóoree bal ci sa place bii la daanu si. dafa daw ba fii daa dugg daa daanu man si boo xamante fu ma nekk si laa retourné ne man waa ji waa ji bi muy dóor ba maa ngi taxaw nee xool na ma face à face waaye yàlla dafa ni ma waruma dem rek. Mhm. waaye bal bi jotuma dal benn mu dóor ko fii. Mhm. ba may taxaw fële. léegi bi mu dóoree euh, am na ku mu dendal waaju nekk ci fii ci ripaas yi nekk moom it euh, dégg nañ ne bal bi dalaat na ko ba mu ñàkk ba kanam. waaw ah, ko kooku kooku mooy ngañ waaye ngañ moom bàyyi ma intention ba loolu man lépp maa ci njëkk ci borom banque bi. Mm-hmm. ngañ ngañ moom mi ngi jëm mu ngi jëm mu ngi ci kaw saako moom maa ngi toog ngañ ci kaw saako yi. Mm-hmm. njëkkaay yi fee bi dama ñu bëre daw xaw ma ma yëkkati daw bi bi may daw xaw ma waa ji yoroo matériel xaw ma yorul matériel damaa dara pour ak Pape Gueye ñoo tax mbute bi mu yoroo damul waaye moom kan la ciy njëkk a faat. njagale njëkk a faat. njagale a faat njagale a faat njagale moom balu lan la ko dóor. comme daal ni mu ko xombali fii la dawaa da kaa dóor nii la ko dóoree ginnaaw la ko dóoree dóor kanam ginnaaw la ko dóoree ndaka daw fi daanu fii la daanoo sax maa ko léegi bu dee euh, keneen ki nekk ci ripaas moom balu lan la ko dóor kooku moom bàyyi ma xel boolu mën étage bi lépp si njëkk a man sama xel ñu man mu man damatu man maa taxaw mëntu ma toppatu ma waaje maa taxaw croisé les bras léegi bal bi rëcc dal ci sa magasin bi ñuy seen turu bal bi nii bi mu koy dóor yow fan nga ne bu maa ngi boobu kan la doon visé ba bal bi dal fii ci sa la. non bi mu dóoree jege xam naa da ngaa bëggoon dolliwaat bal mu bay mool dal dal fii boobu daam muy taxoon sax beneen garab muy taxoon ne njëga naan ka avant avant avant njëga waa di garee sax mu ñaan daam mu maytu waa ji yor yor yor na fital ak paaga après si la daam reculé daam dinañ ñëw di song waa ji Njaga moo ko wax ki ñuy rey Njaga moo wax loolu. léegi moom waaj bi muy def géej ji ban heure moo jot exact ci marché bi. ay côté yi midi yooyu rek heure midi yooyu rek heure moom dafa ñëw dugg ci biir magasin bi. man li man li may man fii laa toog. damaa gis njëkk a génn rek. topp waaj ñu woo sàccoo. sa mbokk koo xamante ni day ñëw seen palaas njëkk fii lay fargante. fii lay toog fii lay def lépp. munu munu munuñu toog di ko seetaan si laa dawee ak i waaj man xaw waaj lu mu yor waaj mënoon na ma rek ci ma lu mu yor si la attaqué mooy lool daal di jëkk jëkk de jakarta bi daanu waaj waaj tëral na ko waaj daanu waaw waaj si la force jugaat maag beneen booy bàyyi. après si la ko njëga xojee ñoo njëg di gët ñi ñëw ba côté bii ni si la ko dóoree balu ginnaaw si la njëga dawee ba fii si la tëddee daanu. Ablaye Diouf. Ablaye Diouf. waaw dëkk Thiès. dëkk Thiès ki ñu fàtt lan la ci yow. sama ndijaay la sama mag la. moom yaayam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay. waaw njaga nit ku baax la. man affaire bi fu ma ko yëgee mooy dama doon liggéey taxi laa yor man jékki-jékki dégg coow li quoi ci rajo. ñu ne ma am na benn waay bu dugg marché Mbour Grand Mbour quoi dafa génn arme faat fa ay nit ah ma ni loolu ëpp na de ma réew mi daal amul sécurité réew mi daal lu waaye neex def réew mi war nañ ci jël ay matuwaay sécurité matu après benn rakk bi bokkal sama yaay ndey baay moo moo ma woo ne ma laa yëgoo lu xew ma ne ko ah déedéet yëgu ma lu xew de mu ne ma njaga de waa ji dóor bal marché Mbour Grand Mbour bi njaga ci la bok orange mono bi man ko mo mo waaw man ko mom lu meuna defé nonu mo na sa way dal lima dégg dal moy da don wéccé ko affaire fo dal jox ko njaga njaga genn nako xaliss bi ma jox baaxul pour mu dello ko lim ko joxone ci la ko njaga attaqué songo ko xex ak mom bam xex ak mom sa way genn armu dor ko boy bi waaw damay digal ni moy tay bo doon ci njaga njaga ban genre nit la njagam moom li xam ci moom baax na fa baax weesu yaru na am na éducation. am na soxna wala amul am na soxna am na ñaari doom. suñu doom baay la suñu ñaari papa yi bokk ndey ak baay ko korok la samedi indi na fi sam papa hôpital moo sa pa moo papa bëggu dara lu metti sam papa fu mu toll nii sam papa gi ne hôpital waaye xamu sa yëgul na sax njagat lii daal na ko dañ koy nëbb. bilaa ko faat gi ñu bi ñu ko faat boobu maa ngi toggaañ sama jëkkër woo ma ba ma woowee ne ma faama mu ne naam ni mu jàmmansanteeg man ma ne ko lan la xew mu ne ma njaga ma ne ko lan moo xew si njaga mu ne may dégg du njaga seen njaga ma ne ko mu ma ma ne man mu ne ma jox ma numéro njaga saa ko joxee numéro njaga sila laa man amatuma jam amatuma salaam maa ngi baagante dem ba sa ba sa sama teyer bu nek fo manam ko may ma crédit ma wote sama teyer bu ma tele mo ne ma amna ma sel wax xew xibar ñetti nit ñi ngi ray ma ko wi sama nday ko njaga mi wax tam bokku na ci rek te ma daw ba ma demee sama jëkkar na ma wi mom la kon njaga la njaga la ñu téye suñu bop na njaga baaxoon suñu torop torop ñoo wax sax bu baax billah ak message bi ngay lancé tamit. ñun daal ñun waa ji rey dañ ko war a rey waruñu koo toog fa di ko seetaan dañ ko war a rey ba mu dee waruñu koo tëj sa kaso dañ ko war a rey ndax mu ngi faat ay bakkan xam ban yan bakkan la faat mu ngi nii dañ ko war a rey ba mu dee waaw waruñu ko woon sa tëj. village buñuy wax euh, Ndiend nak euh, lan moy tax ñu naan village buñuy wax ñend bo gisé fi ñu taxaw ci ten bi amoon na histoire wa test TV egsi won fi ki nga xam mom moy mbacké fay mi nga xam ne amoon na deux ans fi lañ ko faté won sanni ko fi ci biir ten bi ñu ñuy xibaaraat namit ki nga xam mom moy mooy bokko nak ki nga xam mom moy mbacké fay mi ben lal buñ doon teud bokku kenn ku len euh, yar Khady mom nak mom lañu faté fan lañ ko faatee fii ci sunu ginnaaw fi nga xam ne gis ngeen teen bi fii la ñu tëb dugaloon ki nga xam ne moom mooy Mbacke am ci ñaari at benn rey boo xam ne ñaari rey goo xam ne ci benn kër la amee Mbacke biñ ko faateeg léegi waa TSTV biñ fi ñëweeg léegi mi ngi dooroon mat ci li nga xam ne moom mooy jours ndax le 22 bi passé la Mbacke am li nga xam ne moom mooy quarante jours di ñeent fukki guddi tey la am li nga xam ne moom mooy cinquante jours ñu rey ki nga xam ne moom mooy Khady Faye Khady Faye ñu rey nag. ban anam lañ ko rayee ak nan lañ ko rayee gisoon nañu mbakke fii lañ ko sànni Jine caméraman nañu dem fekki ki nga xam ne moom mooy Xadi Seen fa nga xam ne foofu la ñu defee ñaawteef bi ñu jëlal ko mbokk yi dégtal leen ko voilà ayca ñu dem. comme niñ leen ko waxee woon mbokk yi nga xamné ne yéen a ngi suivre chaîne bu mag bi di test TV comme niñ leen ko xéne egsi wat nañu nak euh, fi nga xamné mom moy Ndiand Fall fi nga xamné fi le Ndiand fi nga xamné ne fi la jéye xewé euh lenn nak euh, bala ñu sé dugg ci li nga xamné fi le jéye ji xewee dañuy bàyyi suñu papa ji mu présenté wu wax ñu touram ba paré ñu door dugg ci waxtaan bi papa ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay sant bu baaxa baax. nga fàttali ñu tour bi. Mbacke Mbeng mhm. euh, dëkk Thiès Medina Fall. Mhm. waaw yëf yi de mom comme niñ ko gisé rek.

moom la ñu faatoon dugal ko ci teen bi teen bi sax lu ñu nii ak fi nga xam ne fi la ñu faatee ki nga xam ne moom mooy Khady Sène mën nga ñoo ñëwal ci anam bi nga xam ne Khady Sène euh, fekk nañ ko fii ñu taxaw euh, fi la fi la jéye ji amee. waaw démb lan woo sama xarit bi Issa ne ko Khady Sène dee mais heureusement bi ñëwee fekk nu ko mu dee mais danoo fekk ñu jam ko ay paaka ba pare xoj ko mu ñu yóbbu ko hôpital ci guddi gi bi demee. opération bi ñoo ngi ko doon waaj a def sax mais après finalement ay minuit la xale bi gaañu waaw. jam-jam moom nan la demee. jam-jam yi nag man fekkuma fi waaye daal nin ma waxee mooy jam-jam yu métti la parce que deret jaa ngi nii deret ji ji xale bu ndaw la moo ngi nii parce que xale bi dafa jàngi ba wàcce rek ñëw bi ñëwee xam naa ne waa euh, ki ko def dani dañ da koo woo dafa ñëw teg saagam ak kolam rek. daal di daw boobu leen ko mujjee gis après benn xale bu jigéen bu dëkk fii. moo jaar ni ci àll bi rek gis xale bi tëdd. mu ne léeg nit la ay 17 heures yooyu ay 17 yooyu. ay 17 heures waaw. six ans la am xale bi six ans la am. Mhm. six ans la bi ngeen ko fi ñëwee bi ñu leen ko waxee bi ngeen ñëwee boobu fekk ngeen xadi seen ñàkkagul bakkanam. déedéet boobu ñàkkagul bakkanam. léegi après ñan ngeen woo ak ñan ñoo ko fi jël si. sapeur ko jël si ak police. Mhm. ñu yóbbu ko hôpital maam Abdou maam Abdou. waaye moom ba biñ ko fi sapeur di jël si moom mi ngi dund. deewaa boobu moo ngi dund parce que boobu demagul moom. Mm-hmm. boobu demagul. Euh, tey euh, ban euh, xale bu ndaw la xale bu ndaw la mais amul laf daal dafa tuuti. Mm-hmm. xale bu ndaw la. moom moog Mbàkke mi ñoo bu ñoo daan tëdd ñoom ñaar ñoo daan defandoo lépp seen maam yar leen ci yor leen ci kër gi mm-hmm. waaye nag gis nga yëf yi moom ni mu demee parce que Mbàkke Fay ban ko rayee ba léegi amuñu ci benn résultat. benn résultat amu amuñu ko ci. ba lii ba lii vingt waaw Mbàkke vingt deux bi passé la am quarante jours. Mhm. ñu de ñu defaat ni xadi fay xale bu ndaw xamul dara ñu rayaat ko comme nii kon li ko rey loolu waa police ñoom ñoo ci war a jublu xam lan moo waral lii. waaye ci lu jëm ci wàllu xadi fay mi nga xam ne fekk ngeen ko mu jot a ñàkk bakkanam Euh, police ubbeegum na ci enquête wala am na ñu ciy déglu. waaw am na enquête bi ubbi nañ ko ba actuellement nii ñoo ngi ci. actuellement ni ñoom ñoo ngi ci parce que Issa nji la mook xaali ak maire bi ñoom ñëpp ñoo ngi police actuellement nii. Mm-hmm. waaw ñoo ngi ñoo ngi def enquête bi. moom Khady ko fee joxe woon. non dañ ko fee joxe woon comme comme Mbàkke rek li dal Mbàkke rek moo ko dal parce que dañ ko fee joxe woon mm-hmm. waaye ñoom xamuñu ku dul seen maam demuñu fenn. demunu fenn ki def ki def li mbacke mo def li khalifa yi rek moko def li nak dañuy ñaan yàlla ñu leeral nak lepp parce que fimne li ne jot jotna di jot jotna parce que ni est-ce que kii soxlawul maire bi wala mu soxla kenn ci mag ñi parce que ci même pas 50 jours ñaari crime ci benn kër lu yef yaangi bëgg ëpp ëpp loxo kon nak nan nan nan nu fexé nak baxu wannu ki nga xamanteni mo mo def jëf ji parce que mo gëna rafet parce que lii bu yàggee nii fay ay dëkk bi mën naa tàkk ci loo xamante ni du ko du ko jar. léegi yéen euh, famille bi nga xam ne yéen a fi nekk euh, muy famille boo xam ne faat nañu ki nga xam ne moom mooy Mbacke Faye euh, faat ki nga xam ne moom mooy Khady Sène da am ñu ngeen joteel ci da ngeen am ñu ngeen joteel ci dëkk bi wala. non non amuñu benn amuñu kenn en ci kër ci dëkk bi. parce que ñëpp jàmm la maire bi seq ak ñoom. ñëpp ñëpp nag jàmm rek la seq ak lan seq ak maire bi. kon lii ki koy def ñun ba léegi ñun moom lañ bëgg a xam kan la ñun nan xam kan la parce que nag fii fi mu ne nii day mel ni affaire bi xamatul lu muy nuru kenn xamu ko. ci lu muy nuru boobu euh, ñaari faat yi euh, même place bi la. même place bi ndax euh, Khady Sène fii lañ ko faatee fii ñu taxaw. Mbacké teen biñ ko sànni woon mi ngi nii. waaw mu bokk benn place biñ leen reyee. ñoo ñoo bokk benn place parce que fii ñu taxaw nii fi ne nii fi leen reyee Khady Faye fee ngay gis miir bii nii fi leen reyee Mbacké. Mm-hmm. ca ñaari xale yoo xamante ni ñoo daan tëdd ñooy bokk lépp seen lépp benn la seen lépp benn la. ndax famille bi euh, amul ñu jàppalante mer histoire bu yàgg walla euh, yu ci mel noonu. no loolu moom yaakaaruma ko ni am na ci moom. xa lu ma yaakaaruma ko ci daal. yaakaaruma ko ci. tey ju Paate Mbacke Faye boobu léegi police euh, waxagul dara loolee tey dañu paataat xari Faye ndax da jàpp ni sunu takk der yi li ñu war liggéey dafa des. non des na moom. des na mom parce que li ñom ci mbacké rek mëna xam def enquête bo xamanteni dina mëna xam mbacké kan moko ko def def jëf ji kon bu ñëwaaté li dalaat suñu kaw aussi dañuy loolu la ñuy jàpp loolu la ñuy jàpp commissaire bi nak wax dëgg yalla mom dox na def na ci ay djégo parce que mom ci bopam ñëw na fi ak tankam ñëw dalal suñu xel waxtaan ak ñun mais teewul aussi tax aussi nu ki mo def li wala ki mo def li loolu amagu ci léewu Khady fay jamono ji denc ngeen ko ba pare wala dencagoo leen ko. non dencagunu moo ngi hôpital maam Abdou actuellement nii. ñuy xaar pour ko. dañ dañ koy yóbbu Dakar pour def autopsie bi. Mhm. waaw loolu la ñuy xaar ko mhm. waaw loolu la ñuy xaar. mu ngi noonu dañuy dem Dakar euh, def autopsie bi léegi dañuy jugee fi nga xam ne fi la jéye ji xewee euh, fi nga xam ne fi la ñu faatee Khady Faye fële la ñu fàtte woon ki nga xam ne moom mooy Mbacke sànni ko ci teen bi euh, damay ànd ak euh, sama jinne caméraman ñu dugg ci biir kër gi fekk fa famille bi waxtaan ak ñoom jinne caméraman topp ma ñu duggaat ci biir kër gi. ba léegi ñi ngi ci famille bi ñu am kenn ku ñu toogal ci famille bi di ko fàttali yaay tur bi. Khady Sène. Khady lan nga ci Khady mi nga xam ne faat nañ ko. man lañ ko tuddee. maay bàjjana man leen ko tuddee. démb ci ngoon ay si cinq heures yooyu la ma bàjjanam bi sama mag bu jigéen bi woo. ni ma Khady ma ma daw sil ñëw man ko la xew ba jàmm ma jam nañ sa Khady. ma ni ko jam fekk damaa fekk ci am ngénte ñu toog ñi ma dendal ni ma jam kon de dañuy ka xëy na ay doyen di jaayam ñoo koy defal kii bi ndax feet ki man ko loolu sama waa kër daaw ñu ko def daal di jóg bi ma ne ñokket jóg daanu bi ma toogaatee ñi ma dendal ni ma toogal dalal ma toog dal sama beneen rakk bi ami baal woo ma ni ma xadima mu daw si fekk ma hopital maam da baax xadi dañ koo jam ma daal di ñu ñokket daal di jóg dem sama kër wax ko sama borom kër daal di jël sama bagage ñëw. village bi nag ci ginnaaw Kirène la nekk looloo tax tey ñu war a ñëw dugg ci biir village bi lan moo fa xew muy ab sàmmkat yoo xam ne coow li ngeen fi doon dégg ak ñi nga xam ne moom mooy baykat yi am xale boo xam ne faat nañ ko fa. faat biñ ko faat nag moom moo tax tey les jumeaux ànd ak télé bu mag bi di Teranga Sénégal ñu war a dugg ci biir dëkk bi ci village bi xool famille yi nga xam ne war nañoo sekk ak ñoom waxtaan muy waajur bu jigéenam wala muy ay frère am wala muy ay sœur am looloo tax ma ànd ak sama xarit sama doomu ndey sama jumeau Djiné caméraman topp ma ñu dugg ci biir dëkk bi ci biir village bi ma xool lan moo fa am lan moo fa xew ñu dëgtal ko mbokk yi nga xam ne ñu ngi suivre seen bu mag bi di Teranga Sénégal TS TV jine caméra sama jumeau topp ma ñu dugg biir Kirène. Euh, Seynabou Diouf sa doom ji ñu faat euh, mën nga ñëw ci anam bi ñu ko faatee. suñu doom bi ñu ko faat léegi bu demee mu set lépp lu mu dem yóbbu naa ko ñu mm-hmm. ko moom tamit mu jóge fii ci ay six mm-hmm. mu dem seeti. Mm-hmm. bi mu demee nag mu commencé ñak pour ba jogi pare daf ma yag mu yag ma yag ma ba ma sol sama daal man ha ma siy ak li nekk nii yag na man affaire bi xaw ci di daw di di daw di dem bi yegg ci to lii rek descendre ma gis poul ba jóge ci bir ñax bi daw di wut ci ma ne Abdou dawal pul bàngo bi ñëw fekk yegg bu ma demay daw rek mais avant may wàcc descendre bi fekk fat na nii la demee kon daal ci sa kanam la ko faatee fekk fat na ko dama koo seen rek bi ma koy sànni gaas bi moom euh, la ko faatee loolu rek la ko def waaw dafa génn ci ñax bi rek mu sànni ko jaasi bi mm-hmm. ci loos loos bi la dagg te muskil la man tamit manuma tim sama daw mm-hmm. muy daw moom xale bi muy daw di wàññeeku kan pël bi muy daw xale bi sax mm-hmm. muy daw di wàññeeku ak tàngaay bi mm-hmm. man tamit ma topp pël bi di daw moom ci biir àll bi mu daw toog bi ba mu jël ci biir àll maa ne bi bul dem rey ma boo rey sama doom na ma rey comme ni nga rey sama ma di ko topp di ko topp ba isinu ciment bi ñu isinu ciment gisatuma pël bi ñu fekk ma ay foofu nii la dem waaye pël bi ko faat moom jàpp nañ ko wala jàppuñu ko man wóoru ma nag mhm. yàlla wóoru ma jàpp nañ ko euh, euh, sa doom bi ñu faat boo doon dikkal ci at yi mu am ba xam amoon na soxna wala amoon na doom amul soxna amul doom te mhm. sama doom bi la woon mhm. papam feebar doom ji moom liggéeyam mu ne ma yaay ma ma dama mën liggéey bu ñu ma ci sama papa parce que ma ma ko yëkkati wu kese man ko ah mu ne man ah rek yaay ma ma liggéey bi mu wax patron bi mu ne loolu day jeexal fee boo nga toppatoo sa kilifa moo gën liggéey bi loolu doy na liggéey xal bi toog ak moom fii muy omat papa moom ma yëkkati la moom yóbbu busu ñu sangu di dellu papa mu ngi ni dee na sax waaye papa mu yëgul ni dee na hmm ndax lii metti na tar ba te metti metti yow amuñu dara tool la ñuy dañuy béy di njëriñ. te ñoom dañoo amul coow lu yàgg ñu ci seen diggante ak wala. ah daaw dee heure bii daal pël yi fekk nañu màggam fii bu taatu garab bii fekk ñu takk seen nag yi fii ñu ñu dugg fii ak nag biir eh, nax yi ne leen boo leen bu leen ci jaarati dafa ngeen jaaree fi suñu yekk bi day dem ci seen naq bi dee leen jaar ci wetu apias bi waaye nga ñëw ba ci buntu ginnaaw këru jaamu ci miir bi ngeen dugg ci nax yi ngeen indi seen nax yi ci biir tool yi ci biir nax yi xam nga loolu rafetul ñu commencé wax ak kooku nag magam ñu gor ko fii si ginnaaw kër magam biñ ko goree mbaa ñàkku ci bakkanam ñàkku ci bakkanam hmm. dañ koo gàññi hmm. ñu wax ci loolu nag ñu ñëw fii baalu ñu yóbbu sax kii yu gis bi tribunal yu gis ñu ñëw nag di ñaan di ñaan di dañu bale ci loolu ñu ñëw ren ñu defati ñu ñaaw lii te ñu ngi naan am na kuñ fi mës a dagg tamit euh, loxo waaw mhm. mu ngi fii dagg mhm. nañ ñaari baaram bi mhm. dagg boobu sax fekk ma fekk naa def ñu ngi entré ko ngir Euh, waaye ci coow lii dañoo dégg ñu ne famille ki nga xam ne faat nañ ko daf cee am ay xale yoo xam ne yoon da leen a teg loxo. Ah, teg nañ leen loxo ne dëgg mhm. yàlla dégg naa ne day teg nañ leen ko moom lañuy wax nii léegi mhm. waaw. ñoom lan moo waral ñu teg leen loxo. wax dëgg yàlla aw ma ci lu leer bi mhm. mu nekk ni sama coono lay tal. loolu metti na ma. rey sama doom taj doomu jàmbur. man metti na ma ko ba fépp fu metti yëpp man muñ naa sama doom. muñ naa waaye doomu jàmbur nañ len genné ñu dimbali ma ñu génnee leen mom la bëgg mom lay ñaan bu ma ci mëna dimbali ñu dimbali ma ci rek nañu sama doom jël nañu bakkanam nañu bàyyi doomu jàmbur ñu dimbali ma rek te yalla tax loolu rek la ci li may wax la ci mom lay ñaan ku ci man dara nga dimbali ma ci dimbali ma ci ngir yàlla ak yonentam ah, ci mën a dimbali rek moom lay ñaan moom lay ñaan ndax lii metti na torop torop torop fa metti yem mm-hmm. ndax bi may ne ab dawal dawal dawal mm-hmm. poul bi bu dek bu doon koy yërëm yërëm nit mm-hmm. bu ma bu ma gis ma rek mu bàyyi li muy def waaye deful loolu mu def li ko neex dugg ci doolu jaam bi yàq ko yaxet dellu rey doomam ci lii la ne bu doon seen zone sax ñu ne wàll mu nekk zone Ukraine zone Ukraine bu den seen commune ñu ne waaw du seen commune commune waa Kirène Diès seen commune bi Pout la waaye toujours ñu ñëw fii ñuy yàq di rey nit ñi ci li leen neex rek ñu bàyyi leen ci xam ne lii metti na hmm. metti na ba fa metti yëpp ndax gi ñi mu de ñu gaañ jaay gaañ sama doom gaañ benn malien fii mm-hmm. loolu moom toujours ñu ngi si ñu ngi si ci li leen neex ci biir këram. Mm-hmm. ñëw ba sa buntu kër rey la jóge càmbu ñëw rey la fii xam nga ne loolu neexul. Mm-hmm. neexul neexul kenn métti sa doom ji euh, fi ko reyee foofu ci àll bi kan moo ko fa jël see sapeur ko fa jël see wala. wala boo xam foofu la jotee ñàkk bakkanam kooku foofu la jógee ñàkk bakkan foofu la ñàkkee bakkan yi lañ ko jël foofu lañ ko sàng oto yi foofu lañ ko jële yóbbu mm-hmm. waaw ba léegi ñi ngi ci biir famille bi nga xam ne mooy am Abdou fay bi nga xam ne faat nañ ko ginnaaw bi ñu dégloo waajuram bu jigéen Euh, ñu déglu nag euh, ki nga xam ne moom mooy magam bi nga xam ne ñoo bokk ndey ak baay euh, sëñ bi nga fàttali ñu waat tur bi. Ablaye Faye. Ablaye Faye. waaw yow ak ki nga xam ne moom la fàtt yéen a bokk ndey ak baay. bokk mën nga ñoo ñëwalaat ci anam bi nga xam ne noonu la ñàkkee bakkanam. waaw ni ko maire bi waxee rek yaakaar naa ne noonu la ñàkkee bakkanam fii la jóge kër gi pour ñagi toolam maire bi wóoluwul loolu. comme que pël dégg na ne pël yaa ngi tool ya mu topp ci ndeke booba pël bi làqatu na ko xam naa da koo gis mu làqatu ko maire bi topp ci di yuuxu pour mu téye ko laata bi muy yuuxu noonu maire bi bi muy yuuxu noonu pour ko naan abdu pël baa ngi noonu rek boobu pël bi góor na ko maire bi topp pël yi nii talatul abdu mi mu topp pël yi dugg àll mu yuuxu rek mu topp pël yi boobi nag pour mu rawale boppam fi biñ ko góoree mu daw pour mu ñëw kër yi bu mu ñëwee mu dem ba ci kër yi fële kaw foofu la daanu boobu liy d ci moom ci deret bëri na boobu yéen nga xam ne yéen ay magam boobu fan ngeen nekkoon booba maa ngi jàngale Thiambo dëkk bu ñuy wax Thiambo damaa ñëw ba ci terrain bi fii mhm. benn paa bi garde ci antene bi fële mhm. mu ne ma foo bàyyee ko ma ne ko càmb laa bàyyeekoo. mu ne ma dégg naa de booy bi sàmm nag yi dëkk kër yële moom la pour yire noonu laa wursee àlla bi li ma yoroon lépp bàyyi ko foofu ma dugg àll bi noonu di daw ca biir àll ba foofu ma ne leen ana Abdou ana Abdou fu ñu ko gor ñu naan ma Abdou dee ma tàqali ko sama sago xamatuma xamatuma li may def xam nga loolu dafa métti mm-hmm. ki nga xam ne yaa ko yee ci suba si ma ne ko jëlal lii boo paree nga dégg ci kooku nit xaw ma nit nan ngay tiimee nit di ko gor loolu gën a métti te du benn yoon du ñaari yoon. kon mosoon na fee am. mos magam lañu ñu njëkk a góor heure bii daaw ci bot fii ñu wax ba mu sedd noonu demuñu ci dem nañ yoon nag. alerté ñu defaat ko weer bële passé. même même date le treize bële passé ak le treize bii ci lañ góor waa ji garde ci forage bi ñetti baaraam yëpp waa poli ñoo ko góor même famille ñoo ñoo defaat loolu même famille ki rey Abdou ak ki góor waa joojo ñoo defaat loolu Euh, tay nak bu ngeen gisee les deux jumeaux ànd fi ak wa test TV di Teranga Sénégal euh, li ngeen gis ni nak mom la police bi parcel ak commissaire saw euh, tek li nga xam mom moy loxo bu ngeen gisee bagages yi nak li lepp muy savre indien ñi nan savre indien ñi nan li nga xam mom moy yamba muy cornet yi nga xam tek nañ ko loxo mu nekk ci li nga xam mom moy 17 kilos yo xam japp nako ak cornet yi nga xam momit moom da ko jaay 2500 mi ngi ni ngeen gis ni euh, dara du leen ci ak euh, test TV di Teranga Sénégal gis ngeen ni cornet di euh, mom la don jaayé ben 2500 mu 17 Kg. kilos wayé ci enquête bu am solo information police ki nga été mom moy commissaire muy bi nga une semaine filé nañ ko pour mën ak éléments waye biñ koy ñëk top tamit euh, ñi ngi ko top fi nga xamné mom moy rond-point parcelle waa ji mi ngi yoré ben moto waji ji cornet yi da koy défar bu ko défaré ba paré après dang koy envoyer li nga xamné mom moy Orange Money nga wax ko fi nga koy xaar bu diké rek mom du taxaw day ñëw daal di jël mbuss bi sanni lako waye ci xarañte commissaire euh, euh, saw ak ay éléments def nañu seeni manine ba top ki nga xamné mom moy waji ci top bi nak top nañ ko pendant une semaine euh, waa ji nous ko jappé fi nga xamné mom moy R100 waaye nak dekkul fi nga dafa logé euh, Omar Sey euh, Omar Saw commissaire Saw se la tek Nous loxo ak ay éléments am information yi nga xamné tamit wat nañ ko fi nga police la police am ak dal ak liggéeyu commissaire Saw ak ay éléments lolu mom mo waral quantité bi yépp euh, ñu mën ko teg loxo li ngeen di gis ni yépp mbusi yépp ay paquetu li nga xamné mom moy yamba la euh, ñi nan ko savre indien euh, mu jotone ci def tamit ay cornet cornet yi bu ngeen ko gisee mom lañuy jaayé ben 2500 deux mille cinq ñi ni diko xol mom ngeen di gis ni mbuus li ci nekk lepp mom mo nekk ni gis nga ko biñ ko tassé bi ñu tasee mbuus yi moom moo nekk nii muy lekk tamit euh, taxawaay bu ama am solo boo xam ne euh, commissaire Cissé tamit euh, mi ngi koy def lu jëm ci askanu Thiès. ndax bu ñu nee liggéey bu am solo ndax lii lépp tamit mar taali bu fekkoon ni rëcc na ci biir marché bi amaana tey sunuy sunuy sunuy frère ñoom ñoo koy jëfandikoo loolu ngay gis tey ñii këf jakartaay ñi ngay dégg ñu ne nit mi ngi joteeg nit ci cent franc jam na ko wala nit tëddee na nit rey ko ci ñàkk ànd ak seeni sago lii la ñuy jox sunu frères yi ñu koy jëfandikoo te tey lii bu fekkoon ni commissaire saw tegu ko woon loxo amaana mu dugg ci biir marché bi kat dina am naneen noo xam ne dina ko dikkee diko ko nak ci taxawayam bu am solo lolo tax nak tay Wa, test TV euh, dadi fi tew and ak les deux jumeaux pour meun leena wan li nga xam mom moy information bi nga xam amna fi ci bir euh, commissariat parcel aseni. ñu nek fi nga xam mom moy bureau commissaire saw comme ni ma leen ko waxe ñu rappelé wat ko cornet yi moom la don jaay ben deux ben 2500 mille euh, jumeaux li ci gëna neex mom moy ni commissaire saw def ba tek ko loxo ci tay bi ci dal ndax waaji ji à chaque fois moto bu mag la yore waa ji bu lay jax du taxaw da nga leen wax ne la xaar ma ci rond-point sàngam wala xaar ma ci bërëb sàngam fekk yow envoyé nga ko li nga xam ne sa xaalis mooy Orange Money day ñëw ba jubla sànni la ko waaye ci sànni boobu tamit euh, fekk ki nga xam ne mooy commissaire saw ay élément tamit mobilisé na nekk xarañ xarañte xarañ ko gu am solo ku nekk mu am fu mu la placé ba gars yi xàmmee li nga xam ne moom mooy moto bi une semaine ñuy topp moto bi di ko topp ba gis kër gi mu dugg te amaana kër googu dëkku fa waaye dafa logé ci loolu nag waa ji ndakay 9h lay dugg ci biir kër gi bu fa duggee 9h Fallait nek ba 14h 14h bi nak lan la fay def mom moy bu duggé paquet yi ngeen di gis ni day dugg ci nek bi diko daggat def perte de ben mbuus 2500 2500. léegi nak bi mu paquetee ba pare nak avant muy génn ci la commissaire Saw ak ay éléments am dugg dal di koy tek loxo lolou mom mo waral ñu tek quantité bu toll nii euh, tollu ci li nga xamné mom moy 17 kilos ak euh, li nga xamné mom moy ay cornet euh, di jaajëfalaat bu baax a baax wa test waa TS TV di jaajëfalaat bu baax baax tamit askanu Sénégal rawatina tamit euh, commissaire Cissé ak euh, ay élément bu baax baax muy information yi nga xamné tamit euh, mujjoot nañ ko amaat fi nga xamné mom moy ci commissariat bi biñu ñu commissaire laaj nañ ko ki nga xamné tamit mom moy waji waye néna nee ki nga xamné mom moy procureur légui nak mi ngi ci loxo ki nga xamné mom moy procureur en attendant ñukoy déféré fi nga xamné mom moy parquet ay ca di leen jaajëfalaat bu baax baax dara du len ci ump ak test TV dee ko topp xale yi lew na sama kër la ñuy julli la ñuy jullee si maa leen taajal si woo bu ñuy naane bu sankëree ñoom ñëpp ñu jàpp julli dem lew du ñibbi dégg nga ñoom boo mu wàccee xale bi ni ma yaay jam nañ bàyyi laat ma li bëri bool añ bi ñëw bi ma ñëwee fii laa daje ci jam xeet ko nii mu ne basar daanu dee ma ko dee na ñu fer sama gémmiñ ñi ma déew xale bi dee na tourné jàpp xale bi ko rey téye ko ñun ma bàyyi ko wàcc leen micro tuuti daal koy jël mm-hmm. dugal ko ci biir kër gi ndëj ko police a ngi ñëw mm-hmm. ma ne xale yi wooteel leen ma xale yu góor yi ci kër gi ñu wàcc ñëw tëj seen bitig yi ñëw xale yi ñëw lii la ñu yóbbu ko avant muy egg ana ana jam-jam bi fan la toll ci jam-jam bi fii la daanu ci samay loxo man mii maay ndeyam maa leen yar loolu dong nag law laa ci xam. yéen a loolu la ci xam foofu rek laa yem waaw waaw waaw waaw. mais bàyyi leen bàyyi leen def ma. yéen da ngeen a defee duma nit. bàyyi laan ñang la tudd. bàyyi laan mbàkk lañ ko tuddee bàyyi laan ñang la tudd. aji jàppatuma ko de aji xam naa ay 17 ans yooyu daal waaw liggéeyu jàng arxuraan lañu xam tàkku saanee ñun jàngee ba ñëw toog fii ba heure dem mm-hmm. répété jot mm-hmm. ñu dem répété jàngi seen xasida mm-hmm. ñëw ci biir kër gi ñun koñ baa ngi ni Daaru Salaam samay gone duñu dox man nee nañ police yóbbu na ko xaw ma ko xaw ma ko xàmmeewu ma ko di tam parce que xale koñ bi moom dëkku fi fii mooy grand pas su xale yi samay waa du ñu dem duñu loolu rek la ci xam nag loolu dong nag ñu dem bi ñu def sa bët jamono jooju looy loo man mitti xol bu jeex tàkk ba fii ma taxaw parce que yarewuma leen ko ñu tooñ tooñ daaru salaam ba daaru salaam la xam nañ ma sama doom ku mu tooñ mhm. wax ma ma faj léegi nga gis mhm. ki mujjee fer ci kër gi sax du tooñ mhm. ndax bu tooñee yaakaar na ni man bu ma ñëwee rey naa ko man loolu laay dundee ndax damaa ragal tooñ. Mm-hmm. mooy sa taw sama doom wujju peccar go la ma boole leen yar ak samay doom ci biir kër gi. Mm-hmm. seen yaay tuxu daaw daaru bax daat ak seen papa di sama rakku jëkkër. Mm-hmm. sama jëkkër génn àdduna daaw jéeg xale yi tuxu bax daat bu ñu xëyee fii la ñuy xëy yendu si ba ngoon ji daara ji la ñuy jànge ba reer ba pare ku ne dem ñibbis ñibbi sa kër bu dee dañuy dem guddi àjjuma fii lañ koy defee ci ëtt bi bu ñu demul guddi àjjuma dem si talami répété ñëw. amuñu keneen soxla li la. li la mel ni di fas nak bari ci réew mi. waaw nag ñu war ci wax nak mu yam fi parce que sino mm-hmm. dinañ fi gis lo xamanteni ni mm-hmm. dina uppi loxo wa parce que li mom du luy wey te mu a wéy ndax ñi jotewul ak nit dara toñu ñu kacaluñu ñu leni bom ci àllub kese du deug du yoon nan ci wax nak ak nuñ ci gaaw waxe rek war nañ ko ci wax salaam ay ci mbokk yi wat nañu len ci chaîne bu mag bi fi leen koy nuyo di test TV di Teranga Senegal. les jumeaux nag eh, egsiwaat nañu bu ngeen ñu gisee fii ci àll bi eh, ginnaaw bi ñu jugee Thiès eh, dikk fi nga xam ne moom mooy Tivaouane village bi ñu jëm nag mi ngi tudd Kër Mallé Kër Mallé pour ñu tettal leen ko da ñëw ba Tivaouane Carrefour nga jël li nga xam ne moom mooy à gauche bi nga xam ne moom moo jëm Mboro egsi nañu fi nga xam ne nag moom mooy Thialé waaye boo continuer yaa ngi jëm fi nga xam ne moom mooy Mboro soo jàddee nag yaa ngi dem ci village yi nga xam ne fa lañ war a dem village bi ngay njëkk a jot nag. Amna Lufa lu fa xew amna lu fa am lan mo fa xew lan mo fa am ki nga xamne ñi ngi koy wax mohammed ndoy mom mi nga xamne moy car bi ñu ci Dakar fofu lañu bëgg dem nak dekk ñi nga xamne mom moy bi micro ñu yëkëti ci cadeau li nga xamne sen dom bi di mohammed fat biñ ko faat waye tamit euh, test TV les jumeaux duñ fa yam de suñu jugee kër ñoom mohammed bëgg nañoo ci banen village bi nga mi ngi jaay euh, buñ fa

acca mi ngi noonu mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon rek egsi nañu ci famille ki nga xam ne mooy Ameth Ndoye mi nga xam ne faat nañ ko ñu egsi ci biir kër gi nag war dugg ci famille bi sekk ak ñoom waxtaan ñu ngi toog ak kenn ci famille bi ñu bàyyi ko mu nuyoo présenté wu sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la jaale tamit li ñu bokk. waaw ah, ñoo ngi lay delloo sa nuyoo bu baax di leen delloo njaal mi yéen it di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un moom. ñun ñep kan ku ne mën na ko jaal sa morom tax suñ doom ju bax la won ñak nañ ko nak ci ñi am nañ mo xamante ni naqari la leen torop sax naqari na fami bi naqari na njabot gi ñep ay doomi bayam ay yaayam ay mamam ñep ñi ngi ci kër gi tay fu mbokk nek rek yaa ngi sa ci fat go xamante ni anam yu ñaawa ñaaw lay doon mën nañoo ñëw ci anam bi nga xam ne Ameth ñàkkee na ko bakkanam. waaw ni mu ñàkkee bakkanam daal barki dem man fi laa alarba di dem Thiès su ma demee ba egg sama place rek ci lañ ma wooyee ni ma Ameth mi ngi garage su Thiès da doon xeex ak benn booy emprunté ba ngur si daanu na ba dee na ma jëlee Jakarta daw ba egg ba duma eggee man leen anam ñun ma ñi ngi dem pour jël nako man budul boy emprunt yi nga xamante ni ñoo fa nek nak mom ak wa sappoor kenn jittuuma fa ndax man bima accé ci hôpital bi ñu tek ko rek ñom biñu génné la agsi sebul ma ki ne si margo bi ñun ñoo ko noon takk ak defar ba ma duggal ko ci biir kon ci fat bi mënu ñu xam euh, ban anam la ko faatee paaka wala lan la ak lan lañ joté ba mu fat ko euh, non non dagul fenn hmm. gisuma ko mun naa ci fenn man ñu mujj ci moom ba fi mu toll xanaa bu dul docteur yi ko yore seen ma ne ñu mujj ci moom ci laa bokk. dëggul fenn nàccut fenn. ba ma ñëwee yaram bi ma ko laalee dafa tàng jër en tout cas nag euh, fi mu tëddan. huile ak bu bi ñëpp ñoo ànd. bi ma laajee lu xew dégg naa ci ren mi ñu ne nguur si da mboq mboq mu yàgg. da ko doole. yàq ko dóor ko ba gaañ ko ba ma ko ci parce que oto bi. xam nga la damm loos day na waar trop loos dafa foor bi moo damm. loos bi dafa damm am la docteur bi wax. en man bi ma koy tourné loosam yi fi mu ne càdd nii benn côté. loos yi ba tey mënut a dem parce que dafa niwi xam nga instant loos yi waru cee mën a defee noonu. Mhm. waaye loos yi moom ba tey daa def nii rek niwi. Amet ku mën a na jariñ jariñ ndeyam la. Amet moom moo bu ñuy laajte Amet est amoon na soxna ki doom. non jot woon na am soxna 17 ans la jot la am. Mm-hmm. waaye nag Amet daal ku amoon yaakaar la ci moom torop. Mm-hmm. boo Moussa ne Amet rek bës na bët yi suuf. Mm-hmm. am kersa torop di nungu awoon yoonu di mu lay waajuram parce que même bi muy xëy. patron bi mu àndale ñëw na nee nañ ba jox yaayam 2000 francs ni ko amata la ko jox te xale bu toll noonu métti hmm. na fu mu toll. parce que ci ci famille bi yow nga njëkk koo yëg njëkk koo jot euh, nan nga def ba xibaar ko famille bi ci lu metti noonu ba ak nan la ko yaayam def ma yëg ko. bi ma bi ma waxee loolu man. Hmm. bi may dayee ñew ñëw safoor bi nga xayante ni nek nak mom moy da daa ci dekk bi moy bi mu xëyee di dem lañ ko wo ci yoni wax ko ko safoor booba wo waajuram mu gor expliqué ko ci lañ doro a wax waajur wi ñomit ciow coow li jàpp fii bi ma wootee ñun ma waa dëkk bi yeg nañ ko fi toll ci lañ ma ñew fekke fele waaye dal bokki kirayee dañu ñew naan dañ ñon xëccoo kaasu kafe xëccoo kaasu kafe rëyul doom adamama waaw ci xibaar sax ñun ñi ngi am ay information ni ay kaasu café ñi nee nañ kaasu café la ñi nee nañu la déet déet kaasu café ko ni rek nit daw damul los los dafa for dañu waxe seen bakkan ñu ne ci hôpital bi ñun tal suñu neew ñom sank ñu jëngu sax massa lañu andal ak ñom seen dom la ñon jema xol nañu nuñ ko ci biir te kooku moom c'est trop tard faaw luwaat na def liggéeyam xanaa dégg naa ci sax benn booy bu ni sama loxo gudd na mën naa koo génnee waaye loxo bu gudd moom loo yuutu mën koo jot moo ëpp importance. Mm-hmm. loo yuutu mën koo jot. Mm-hmm. moo ëpp importance loxo bu gudd. Mm-hmm. mi ngi noonu comme niñ leen ko diggee woon euh, di TS TV di Teranga Sénégal les deux jumeaux ñun ñoo leen ko waxoon bépp xew-xew boo xam ne am na ci biir réew mi rek dinañu sol sunu daal dem fa indil leen ko moom moo tax ñu ne xibaar nay wér te wóor lan moo tax muy wér te wóor ginnaaw bi ñu génnee fi nga xam ne moom mooy mbayeen fekk nañu famille ki nga xam ne moom mooy Ameth ndooy mi nga xam ne jël nañu bakkanam dégg nañu ci famille bi ay kàddu yu fa yëkkati ñu ne nag duñ fa yem dañuy jugaat sol sunu dàll dem fi nga xam ne moom mooy Bayti Njaay bu ñu egsee Bayti Njaay nag ki nga xam ne moom mooy àlla moom la ñu tudd ne moom moo jël bakkanu ki nga xam ne moom mooy Ameth Ndoye léegi nag moo tax sama jine caméraman TS TV les jumeaux nañu dem dugg ci biir kër ki nga xam ne moom mooy kër ñoom àll fekk famille àll bi ñu xool yaayu àll xool papay àll yan kàddu la ñuy yëkkati bi ñu jegee ni seen doomkat jël na bakkan yan kàddu lañ ci def mi ngi noonu nag bu leen fàtte di abone di bës kolos bi Djiné Caméraman topp ma ñu dugg biir kër ñoom àll ma fekk fa papaam ak yaayam ñu yëkkati ci kàddu euh, ayca mi ngi noonu comme niñ leen ko waxee woon euh, ginnaaw bi ñu génnee kër ñoom Mohamed mi nga xam ne moom moo jot ñàkk bakkanam kër gi tamit bi ñu fi dugg see euh, ki ñuy wax Mansour nga xam ne yàlla moom la nattoo ndogal li euh, jaarale ko ci loxoom bi ñu fi ñëwee tamit naqar ak tamit lañ fi nemmeeku ndax lu tax naqar ak lañ fi nemmeeku muy kër goo xam ne tey euh, su ñu xëyee ñu ne ki nga xam ne moom mooy seen doom yàlla kat teg na nattu bi ci ci moom. Euh, teg nattu bi ci moom kat moom mooy ci loxoom foofu la ko jaarale léegi nag moom moo tax ñu toog ak euh, ki nga xam ne moom mooy euh, waajuram bu jigéen waajuram bu góor di mës ki nga xam ne moom la ñu ne jaarale nañu mbir mi ci loxoom ñu sekk ak moom waxtaan papa ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di siyaar di leen balaax di leen balaax di am naqar ak tiis ndax mbir mi bi moo amee. ñun nii rek nii ngeen ko yëgee rek lañ ko yëgee nguur si nag jàngal nañ ko daara la jóge jàngal nañ ko alxuraan ba mu lii mu lii mu xëy xëy dem ni yi jàngi micc lii nag am nattu la boo xam ni mënul woon a ñàkk ci moom ndax suñ borom moom li mu suñ borom moom li mu bind ci nit ki allah kulli alin mënta ñàkk mais nag naqar moom fu naqar yem moom naqari nanu moom te ñoo ngi ko ñu ngi ñu ngi ànd ak mbokki Mohamed naqar wi ak tiis wi di leen balo àq te di leen ko jaal lii nag da doon loo xam ne allah kulli alin munta jaas ndax doomu aadama moom bu ko yàlla bi ko yàllay bind noonu na ko ciin fii ak fii booy génn àdduna fii ak fii ngay jaar loolu kenn mënu ci dara mais booy bi moom wax dëgg yàlla man ba ma ko juree ba léegi ma yóbbu ko daara mosuma dégg ñu ne xeex na wala xuloo na wala def na dara lii nag natt bu yàlla indi la te ñoo ngi koy ñoo ngi massaw ñi mu dal. te ci xibaar ñi ngi dégg ne sax moom euh, dafa jaaroon daara bi mu jógee daara ak léegi bi muy duggaat ci oto yi sax yàggul. waaw waaw dafa jaar na daa demal na daara bi mu duggee ci oto yeeg léegi mëtul matul weer wala bu matee weer ci lay toll man moom fi ne ni ma la yëgal ni moom sama xol dafa jeex ba mënuma wax lu bari ndax naqar wu ma am ci lii maa ngi koy jaali Mouhamed maa ngi koy jaali bokkam di leen balu àq fu balu àq yam ndax wax dëgg yàlla lu yàlla dogal la lu yàlla dogal la kenn mënu ci dara man daal foofu laa ko wéer wasalaam. Euh, bi ñu jógee ci waajuram bu góor ñi ngi tamit euh, ci ki nga xam ne moom mooy waajuram bu jigéen ndaxte tamit euh, xëy rek ñu ne sa doom nattu dal na ko faat na bakkan bi nga ko yëgee nan la def ci yow. xanaa am ci naqar rek su ma doon yàlla di ko tege moom moomu laa koy teg àll kon Mouhamed dama ko teg mukk ci aduna lekuma nanuma nda amu nakar rek yaayam je mako gëna mu nakar mako gëna mu nakar nak wërna yalla ni mako gëna mu nakar don tege ala la koy teg waaye moo xam ne dama ko teg mukk ci aduna amna mu nakar nak fu ko ba fa mu yem waaye ko yalla xara aljana ala nak mom, yang la xamun ci mom jang alquran bëgg ñu ñun ñëpp bëgg papa àlla mooy sa taaw. àlla moo topp sama taaw. Mm-hmm. moo topp sama taaw moom oto yi bi mu ci demee mm-hmm. fan yii rek la ci dem. Mm-hmm. daa rajo la nekkoon waaye yàlla rek moo dogale li bari ki dem la fa xew waaye yàlla moo dogale loolu yaayam jee maa ko gën amu naqar ba ca kanamu yàlla maako ko gën a am de waaye yàlla mooy dogal waaye bu man bu doon maa ko am di ko joxe kon àlla laa koy jox Muhammad mi kon duma ko jox mu ko ci àdduna kon àlla laa koy jox yal na ko xaar yàlla xaar a àjjana yal na ko yàlla xaar a àjjana sama xol na mënu maa wax mënu maa wax sama xol dafa fees ndax Mouhamed mi dem moo moo fees sama xol bi man jooyu ma àll Mouhamed laay jooy Mouhamed ma gaañu moom laay jooy barki dem te mënu maa lekk mu toll ma doog sax damay bëgg a daanu mënu maa sama xol dafa fees na ko yàlla xaar a àjjana na ko yàlla xaar a àjjana bu vous nak euh, ci biir réew mi lépp bëgg ngeen di jot suñuy vidéo ñi ngi leen di ñaan à képp vidéo bi rek des information la raw TV Teranga Sénégal les jumeaux jine caméraman top ma ñu dugg ci village DSTV di Teranga Sénégal euh, les deux jumeaux egsi nañu ci biir euh, dëkk bi nga xam ne moom mooy Ndieye euh, jumaa ji ñu taxaw nag moom mooy jumaa ji nga xam ne joxoon nañu travaux yi ki nga xam ne moom mooy Bassirou mbay mu doon nodd ci jàkka ji ak problème yi nga xam ne dox na ci ba ñu nangu li nga xam ne moom mooy travaux yi ba tere ko fee nodd ñu am benn terrain boo xam ne mayoon nañ ko ko fële terrain boobu nag mu commencé woon faa tabax li nga xam ne moom mooy jàkk ci tabax boobu nag foofu la coow li am ba ñu faatee ko foofu léegi dañuy dugg ci biir euh, dugg ca kër ga fa nga xam ne foofu la problème bi amee bañu ñu faatee ko fa. bi demee ba bëgg juma suñu borom tawaar ko daal dogal ñu jox fa euh, liggéey bu teg ko ci loxol bas bas yore liggéey moo ko emprunté mi di liggéey jumaa ji di liggéey jumaa ji di liggéey jumaa liggéey jumaa ji ba dem ba àgg ci wut ay fenêtre ñu dem commandé ay fenêtre ca ku ñuy wax Ali Guèye Ali Guèye ban foofu commandé ay fenêtre ñu ni maanaam euh, fenêtre yi ni commandé yëpp buñ ko commandé ba fay ko Ali Guèye indil leen ay fenêtre fenêtre yooyu ndek da am na benn fenêtre boo xam dafa am problème ci commande bi euh, Ali Guèye bàyyi ko fa dem liggéeyaatal leen benn fenêtre dégg wax bi mi ngi mel tey nga liggéey lu mat euh, juróom-ñaari fenêtre wala juróom-benn fay loola ñu liggéey la juróom-benn fenêtre indil la am bu ci am problème waa ji remplacer la fenêtre ba ca ba nga xamante ni moo ca am problème kon ba ba nga xamante moo am problème kan moo ko moom ku may borom. mu yëkkati ko ni ko naa ko yóbbu may ko gannaaw bi bi mu ko mayee gannaaw bi nag wa ñoom ñu ni ko da nga sàcc fenêtre bi. ñu dem ci dem ci ba gendarmerie fu ne ñu dem ba ku bu nu bu nu woowee alligéey alligéey ni leen maa ko may fenêtre bi loolu lañ topp di ko topp di ko topp di ko topp ba ni ko dootoo noor ci jàkka ji. di ko topp ba sensé liir jàkk di ko topp di ko top ba ne ko dootoo fi jullee léegi tey bu loolu amee ñu ni ko segam loolu am na toogal sa kër nga jullee sa kër jullee sa kër mu ni waaw bu soobee yàlla daal di bàyyi jàkk ji complètement ak ñoom bi mu ñëwee nag jàkk ji nga xamante moom la ci li ñu ko may moom suuf si ko may mu ne nag kon léegi loolu am na naa tabax jàkk fii ci sa sama bu julli jotee ñu ñëw ci jox fi julli juróom ñu nag ñi nga xam ne ñoo fi jege bàyyi leen nag lee nga xamante ni suñu borom dogal na ñu aay ñu ko kon xam nga ni kooku bëgg na jàmm bi mu ñëwee terrasse ko ñu ni ko nag doo ta doo da ngay bàyyi jàkka jee doo fa jullee te doo tabax fii jàkk ci li nga moom xam nga loolu doy na waar dégg nga wax bi ñu topp ko di ko coow di ko coow di ko coow di ko coow dem nañ gendarmerie sous préfet ñëw na fi dégg dem nañ fi tribunal lu ne dem nañ def nañ ko moom ñoom ñii ñu xam ni teguñu ci yoon seenub sëriñ bi nga xam moom mooy seenub sëriñ Euh, am na sax ñu naan diggante murit ak tijaan nag amu fi yooyu amu fi ndax julit lañu xam dëkk moom julit murit ak tijaan yooyu amu fi déedéet coow am maanaam ñu li fi am mooy ay nit yoo nga xam ne dañ fee ne bañ ku baax bañ jàmbaar loolu rek moo leen dal ak ak am luñ koy toppee maanaam li koy toppee mooy lan jàmbaar gi mu jàmbaar ak li ko yàlla defal xam nga yàlla mooy fop la ko soob mu def ko ci jaam ku mu neex da ngay am jàmm ku mu man mën ngaa bañ am jàmm mën ngaa topp ku mu neexul mën ngaa topp mbir di ko topp di ko topp di ko topp ba mujj mu yóbbee la musiba lépp lu ko waral mooy ñàkk a nangu dogalu suñu borom. man kon foofu laa leen féetee loolu la léegi bu loolu amee ñu ciy dem di ci dem di ci dem ba garab bi ñëw fii di liggéey benn suur lënd bi eh, eh, ñu fiy liggéey gaa yi daal di dox ñëw fii fekk ko fi. fekk ma ñoom ñi nga xam ne ñoo bi nga ko fekkee mu yónni benn doomam ne ko wal ma sa pap mu ñëw sama kër fekk ma toog maa ngi bëri ataaya ma ne ma ñëw fekk leen ñu taxaw nii may leen luy lii ñu ne jàkka ji da ko fi tabaxee bu ko tabaxee suñuy bakkan lañ ci gar wala bakkanam moom bu xama bu ko fi tabaxee dañu ko rey dégg nga wax bi am benn booy bu ñuy wax Mansour Dieye ñi yoroon jeesi ci la bokk ba xoolee xam ni eh, mbir mii du jàll parce que Mansour Dieye woon ak magam Njaga Soxna Njaga Jéy ak imam Mor Mbay Wadd ak Aliou ak Sadd Jéy juróominit nit bi ñu dikkee nag fekk emprunté nekk fii ci bitim fii kër gi di tabax bi ñu ñëwee xam ni li fi nekk ci mbooloo ci waa kër grand bi buñ dalee suñu kaw rek mën naa métti ci ñoom ñu daal di bàyyi dem dégg nga bi ñu bàyyee dem ca lan demee sa sama xal dëlul aussi man man xam naa jikkoy waa dëkk bi dégg nga loolu moom daañu ci dikk ah, léegi bu loolu amee ma teel a xëy ma teel a xëy bi ma teelee xëy bi ma teelee xëy ñëw fi fekk garaam fee di di di di ràbb feeram feer bi muy defaree kii bi ma ñëw toog fi wetam ni suuti sama benn tonton bu ñuy wax nu muudu gën mooy papa kee ñëw toog gars yi ma gis ci ci ci ci mardi bi kër chef bi lax dañ doon defee réunion pour maanaam nu ñuy attaqué bas pour faagaagal ko wa fofu naa fi tax ab jàngal tuuti village man may yirif dekk bi may yirif mbolo mi ndaka ngay mana ande funi faga ñuy faagaagale doomu aadama man lol imam ni moy imam dekk bi naka lay mana and ci funi faga faagaagale dekk bi ak funi baña jak ak funi ñuy jak fuñ koy bañ naka lako imam di bañ ak borom dekk en tant que julit lolou loolu mu ne sama bop ma ñu bi ma fi toogee ñu jóg ba ca ca leen doon def ci kër imam ca kër euh, euh, chef du village bi nu ñëw toog na le maa ngi jàkkaarloog ñoom ñu yor seen i téléphone di waxtaan di wootante ci seen biir xam dañuy woote pour dajaloo pour mën nañu mën a ang ñu mën a def ba attaqué grand bi. Euh, loolu nag ma toog leen xool rek jotu jotu maa ñoom dara jotu ñoo ngi dara ñoo ngi toog di woote seen téléphone bi loolu amee ba caag ñu daal di dem. ma ne léegi tey sama téléphone bii nga xamante moom laa yoroon doon ko doon ko sart sama kër ma ne grand bi xaaral ma daw jëli ko léegi te ñëw ndax li man na man booy téléphone damaa bëggan bu ñu ñëwee ma ne grand bi bu ñu ñëwee bu ñu fi dee yàq dara bu ñu leen bu ñu bu ñu bu ñu def dara nañ leen bàyyi ñu yàq lu ñu fi bëgg a yàq. léegi bi ma jugee fii waaxu waaxu bu dëgër dem bi ma demee ci sartee bi jël sama téléphone bu nga dugg sama poos ak waxtu wi yàlla xam na ko la dégg yuux yi dañ koo jam ay paaka dóor ko ay jësi ba ba mu ba mu yéeme waaye raamaaka ne faat bàyyi jàmbur ba pare nag di gën koo naqare yaakaar naa sëñ bi loolu fu mu moom bëri ji de romb koy sàkk looy wax man na du ma ci tontatu kenn ndax man lan suñu sëriñ digal laay def lu ma ci tontatu ken waaye moom yoon na fi man na ku ma romb doon nañu woon ba tooy na waaye bu ma xel ko su noonu ma dem ci yoon rek mu jeex taag lii daal mooy wax ji waaye daal sëñ bi bii dëkk moom ah gis ma fi jàkk xol yi bon rek nag xol bu jégu sëñ bi yàlla yàlla defal xol bu laab xol yi laab daal fi amul boo dëgg soxnaam sii daa nag bu ci mujj bi ko moom daa mel noonu dañoo gën a yokk dañoo gën a yokk moom ndax waxal na ma ko sax ba ma koy tooñ mu ne ah Ibra da noonu xam naa daw ñu gën gën maa jógalati noonu yii xam naa seen xol dina ko a xari de waaw la ma waxoon fii ñu te bi ma waxee léegi bi di amee da yàggut soxna suñ ko may koo xamante ni koo xamante ni man bas yaa ma doy sama doom ji yow dong yaa ma ci doy ndax xam naa sa njàmbar ak sa bëgg lu baax waaw koo kee ko jël doom jooju ko bu gisee ci moom gonte na ko defa ah. keroog day dama ni bii laay Ibra Jaañ ah may may na ma soxna way xamna noni noonu lay def seen xol bi gëna tebon kon da xam nga ni kon la wax ñew na noonu yéen tay mo def ko li ñi mbokk amatul mbokk ko di def yenn yi nan waxante deug mbokk amna lo xamni xam ne xalaatoo def man duma sama mbokk nga ma am lo xamanteni dama la koy def man ñima mo lolu ak Basiru wax deug yalla ma xam ci mom moy nungo liggey nungo jaamu yalla ya wax dëgg yàlla loolu laa xam ci moom de baax lool maanaam ay conseil bi rek képp koy diglu bu soobee yàlla doo aw ci naka sudul noonu bëgg tamit jàmbaar nag di jàmbaar bëgg jàmbaar bëgg tamit ku baax. ne moom mooy gémmañ gi waaye nag bi ko TS TV yëgee bi ñuy egg si léegi nii ñi ngi daje ki nga xam ne moom mooy sapeur pompier ak police ñu jël xale bu jigéen bi di génn léegi nag damay ànd ak sama jine caméraman ñu dem ba ci place bi dem ci mbalit mi xool ñan lañ fa mën a sékkal waxtaan xale bu jigéen bi ban anam lañ ko fa indee ak ban anam la ñu takkee tànk yi takk gémmañ gi waaw ñu ngi ñuy xamal tamit ne xale bu jigéen bi fi mu dëkk tamit euh, soriwul foofu xam naa bu ñu demee ci place bi dinañu mën a xool gaaw rapidement nan la ñu mën a gisee ñi nga xam ne moom mooy ay waajuram muy bu góor wala bu jigéen wala nan lañ mën a demee ba ci kër ga pour jëli fa ay information dara du leen ci ump xale bu jigéen bi nan lañ ko takkee nan lañ ko yeewee nan lañ ko sànnee ci mbalit mi bakkanam wala ñàkkul bakkanam buñ fa àggee dinañ ci xam dara jine caméraman topp ma ñu xuus dugg ci biir mbalit mi ñu xool xale bu jigéen bi ban anam lañ ko fa sànnee. ma ko ah, munu ma damaa soxla asa man ko loo koy doyee munu ma ma ne ko mi ngi ci saal bi mu yër ni ma taa doqee asa néew ci saal bi de ca laa euh, wóor na yàlla bi ma ne néew ci saal bi damaa tiit sax waaw ndax man xaw ma kañ la génnaat ci guddi gi. kañ la ah man man dama see xam dara wóor na yàlla bi xa bi ma sama dëkkandoo bi ñëwee ni ma asan ah, laa soxla ndekete woo ñu ngi ko gis ci kàmb gi man yógu ma si dara maa ngay xëy di baleeka ak a defar ah mu yër saal bu gisu ko billaahi yëguma kañ la génn yow kañ nga yëg ni Asta mi ci ci kàmb gi ay huit heures lan ma ko wax si billaahi ay huit heures lan ma ko wax si ay huit lan ñëw ni ma ah mooy xale bu góor boobu ñëw yaayam ma ko yónni yaayam xam naa ne danoo ñëw ci mbarin mi gis ko mu ñëw ni ma ah, ana dama ana Asta man ko Asta ngi si biir mun ma da man ko loo koy doy mun ma dama koo soxla man ka mi ngi ci saal bi demal bi mu demee ci saal bi gisul Asta billaay fekk gisu ko mun ma meer mun ma taa doqee de asa newul ci saal man ko asa ka ma ne ko nga ne mun ma asa newul ci saal li may balee ka defar yëpp kër ak raxas bu wóor na yàlla bàyyiwuma sa xel maa ngi def ne mi ngi tëdd rek. waaye ki ko fi fekk moom da koo xamee xam ne asa la. xam na ko waaw xam na ko sama dëkkandoo la. ñoo ñoo bokkoon dëkk fii. moom bi mu ñëwee ban anam la ko fekkee. nee na kay dano nee na kay takk ñaari loxo yi takk takk gémmañ gi waaw. waaye jotoo jotoo la ñàkk bakkanam wala ñàkk na bakkanam. nee na de laaj naa ko de mun ma kiyagul mun ma defagul dara mm-hmm. mun ma noppaloogul. laaj na ma daal mun laaj naa ko ba sonn mun ma mu ngi nooy moog beneen xale bu góor laaj naa leen ba sonn ñu gis ni eh, dara eh, liyul eh, ga noppaluwul waaw. waaye wax nañ la ni daal dañoo takk loxo yi takk. waaw nee nañu ma daal dañoo takk loxo yi takk gémmi ba ñu ngi teg sànni fee ca mbalit ma waaw ci laa ko ci laa sa xam dara billaahi ay huit laa xam ci moom lan ma lan ma leeral lii waaye man li may xëy di liggéey ak bale yëpp maa ngi def ni mu ngi tëdd billaahi maa ngi def mu ngi te tey daa waroon a xëy sax liggéey moom tey dong la ñàkk mës a fanaan ci kër gi wala. ah fanaan ci kër gi li muy moom du fanaan àll dinaa ko tere ne ab dox moom dinay génn ci guddi waaye bala ñëw tëdd dina ñëw waaw dina génn ci guddi gi waaye bala ñëw tëdd dina ñëw waaye chaque jour dama koy tere ab dox ndax xale bu jigéen moomu lub dox waa li ma ko doon tere nag lépp a ngi nii waaw xale bu jigéen moomu lub dox. mën nga ñëwaat démb ci ban heure la kër gi. démb laata mu ñëw tëdd. ay 10 heures la agsi bi muy génn booba daanaka 10 heures waa 10 booba daanaka 9 heures jot na ay 9 la génn waaye après 10 la ñëwaat ma ne ko asa ah, bàyyi lu dox. ay 11 heures normal lu dugaat ci kër gi ma ne ko asa ah, bàyyi lu dox ba ma waxanteeg moom foofu ba joteeg moom foofu ñu daal di tëdd. waaw génn gu mujj gii nag yàlla seetlu nañu yëgu ma ko billaahi yëgu ma ko 8 ma ci 8 la laa ko yëg. ni génn na ay atam yi nga xam ne asa am na ko. ñaar fukki at ak ñaar. Assa mooy sa taaw wala. déedéet du sama taaw toppul sax ci sama taaw. Mhm. jógewul sax sama taaw. waaw Assa am na boroom kër wala amul borom. amagul borom kër. amagul borom kër amagul borom kër. Mhm. xale la. man de bi ma ko yëgee léegi matul trente minutes. Mhm. parce que man damay xëy liggéey. 4 heures du matin laay xëy. Ah, maa ngi jëm marché ma jëm marché poisson. foofu laay liggéey mais 9 damay wàcc. bi ma ñëwee nag fekk naa fa benn mère sax muy wax kii. mais boobu xaw ma qu'est-ce que a dama defoon comme histoire ci biti mom lañ ñuy ñëw rek di ko expliquer mm-hmm. léegi nag bi kooku démé la mo ñëw né ma aset dafa gënon bi ba dañ ko agresser man ko amul ah, mo wa pour man sax boobu ñëw na ci kër gi biñ lañ koy agressé yëpp ndekete ñëwul ginaaw bi la ko né anam mu ne ma nañ ma nga ci mbalit man ko kon amatul amatul waaw nii daal laa ko yëg. yow fekkoon na nga man man toujours bi fanaan man 9 toujours day fekk ma tëdd. 9h mhm. man 19 day fekk ma tëdd naa bu ma jógetee 4h du matin mhm. lii nii daal laa ko yëgee. lu lu yéeme lu ma bett lu ma bett. Mhm. lu ma bett ah metti nañu nag lool. waye nak waye fi daan faral di gis ñuy gis ku ñuy fat wala ku ñuy def yenn sànni ko ci mbalit wala mi ngi fi doora am. ba manque c'est la première fois mom mank fi doora deg lu mel ni mank mm-hmm. ko fi doora deg wax dëgg yalla xana fi ngeen dekké ak mbalit ñu soriante wul. bâtiment bi ya ngoy gis bu mag bi mm-hmm. ñun ñoo lo kër gu weex gi ngay gis moy mm-hmm. sama kër waaw. léegi kaddu gu mu digi lan la. ah sant ñep gërëm ñep ndax man nañ ko fekk ci benen situation ah. mën nañ ko fekk mu ñàkk bakkanam te it duñ ci man dara ah comme mi ngi yàlla def na mu fekk ngeen ko mu deseeg bakkeenam alhamdulilah sant rek. Euh, ba léegi am na keneen koo xam ne fekk nañ ko moom it ci mbalit mi fi la nekk di liggéeyee si ku ko fekkee mbokk mi fàttali ñu tur bi. oui euh, Alassane Badji. Alassane Badji. waaw yow ci mbalit mi nga nekk. Euh, femme bi nga xam ne fekk nañ ko fi sapeur jël si ko léegi ak police euh, mën nga ñoo ñëwal ci anam bi ngeen ko gisee. moo xool euh, su ma juumul benn borom mbalit mooy ñii di tuur mbalit yi soo say uh-huh. dafa ñëw xam naa doo doon wut bant pour pour jéem a dàq mbaam bi. ci la daw yéeg nee rek tombeek xale bi tëdd. Uh-huh. moom sax dafa yaakaar ni dafa dee. Uh-huh. après ba ko séenee mu tëdd. gars yi takk loxo yi. takk tànk yi. presque bàyyi koog ben yere kese après nak ci lañ daw comme que nit la ñu daal sam ben xarit dem jël fe comment dire darap dat dat daat ko koy mur après nak ñen yi dem wo policiers yi monté fe garde côté buntu ba policiers yi soog a intervenir def appel ci lay gën a yomb daal pour sapeur euh, ak police euh, scientifique mën a ñëw. léegi yéen bi ngeen koy gis benn yére kese lañ ko bàyyee. benn yére mooy kon genre soulèvement yu xaw a gàtt yi. waaw goddiwul dara mais comme que nit la macha allah après ci lañ dem jël fee suñu dara bi daaj ko fi muur mais kii daal nu ma ko xoolee dafa mel ni guddi gi lañ ko war a sànni. kon da ngeen jàpp ni buñ ko xoolee duñ ko fi indee dañ koo sàkku ba pare. lo lo loolu rek ci lay nduru ku ci tombe rek di nga xam ne kii moom dañ ko saaku sànni ko fi daal di takk loxo yi takk tànk yi. yi takk tànk yi. soo ko sànni waaye ngeen egsee gis ko jot na mi ngi doon nooyi wala nooyiwul. non mu ngi doon nooy mais euh, comment dirais je boo ko xoolee di nga xam ne daal dafa sonn daal. Mm-hmm. waaw. léegi yéen mbalit mi fii xanaa amul ñu fiy faral di fanaan. non ankay am na ñu fi monté guddi mais xam nga rek am na loo xam ne parce que tamit ci ginnaawu jal bi la ku fi romb doo ko foogee. Mm-hmm. ku ci tombé da doon wut yat pour dàq mbaam bi moo tax mu gis ko. mais ñun ñii njëkk a fi gars yi bëri romb nañ fi gisuñ ko xam nga rek xam naa tamit kooku ko waroon gis rek. yu mel noonu daan nañ ko fi faral. non c'est la première fois fii moom am na sécurité te te ñun entre ñun moom dañuy jàppalante kuñ fi seetlu ni bokkoo fi sax dañ lay dàq. Mhm. sincèrement parler am na sécurité dañuy liggéey yaa ngi man mii sax presque ci mbalit mi laa mais kuñ fi seetlu ni macha allah ni yow daal lu ñaaw téef moo la fi tax a dañ lay dàq parce que même waa UCG tamit dañuy jàppale ci liggéey bi. mën nga ñëwaat euh, ci euh, anam bi nga xam ne gis ngeen ko comme ni nga xam ne takkee nañ loxo yi euh, takk gémmañ gi takk tànk yi bàyyi ko noonu nan ngeen ko gisee woon waaw anam bi kon nu ma ko njëkkee woon wax rek benn borom soose su ma juumul moo moo doon dawal sereetu mbaam jékki-jékki xam naa mu ne xaar ma wut yat pour door door mbaam bi ci la yéegee ci jalu miir be ci jalu comment dirais-je jalu suuf se ci la ko gis ci suufam

waaw wax wax dëgg yàlla lii moom mosuñu koo xalaat fii parce que ba kàmb gi kàmb gën a xoot la gënoon a garaaw gënoon a ñàng te loolu mos fee am. kon lii bu amee tey ñun euh, wax dëgg yàlla am nañu mettel vraiment am nañ mettel mais tamit am nañ mettel tamit ci parent xale bu jigéen bi parce que euh, bu fi ay nu jógee mat seen mat taal si seen moto dem ba kër xale bu jigéen bi woo ay parent am at nu mënti demee at lépp luñ ko mën a jàppal ah pour man noo gën a parce que parce dafa ñaaw quoi dafa ñaaw grand doomu aadama ah su su jigéen grand xoolal nañ dañ koy suturaal ñoom na nañoo ñëw ma looloo ma metti parce que fi xale bu jigéen bi toll sonn na sonn na de te bëgg tamit ku ko jàppale at lum moom at moom xoolal at moom xoolal lum leen mën a def mais garaawul grand nañ ko jégal ñu wax ak moom bu jógee ci lii mu jéem a changé mais sa doom toll ci anam bi ñu lay woo ñëwoo grand loolu vraiment ñaaw na ñun moom loolu la ñuy gën a ñaawlu ci ci affaire bi vraiment. waaw parents yi ñoom fi lañ leen fekk léegi ni ndax ñu ngi noonu di door waaw parce que ba bañ leen woowee ca fajar lañ leen woo ca ca suba ba tey nanguwul ñu woon a ñëw ki ki leen xool ki leen woowoon mu xoolal moto baa ngi ne taxaw Abdoula moom moo yor motom fi la nekk ci ñun si ñun la la bokk fii. moom moo dem ba foofu moo taal taal motom dem woo leen nanguwu ñoo ñëw mu ñëw wax ko xam nga da kooku mag la du fen

am na xale bu nga xam ne ñu ngi koy wax euh, du turu ci turu Bilal euh, doon def li nga xam ne cm ay atam toll ci quatorze ans nit ñi xibaar nag ni jot na ñàkk bakkanam ci biir kër gi ba sàppar jël ko bi ñu egsee nag am na nag xibaar yi ñu ngi wuutee ñi ne dafa xaru ñii ne xaruwul léegi nag dafa xaru wala xaruwul dañoo bëgg doxantu dugg ci biir xool ki nga xam ne moom mooy Bilal nan la def ak ban anam la ñàkkee bakkanam ji ne caméraman topp ma ñu dugg ci biir euh, léegi bu ko defee ñu daal di dugg ci biir

Euh, moom la mujjee duy bidon yi ci xibaar sax jot nañu ne Bilal moom la mujjee duy waaye ba léegi nag euh, sapeur comme niñ ko waxee jël nañ ko yóbbu léegi nag ci ay xibaar euh, xamuñu ndax boo gisee ñaari information bi ngi génn ñii ne nañu lii la ñii ne waaye comme néeg bii ngeen gis ni fi la ñu jàpp ni fi la Bilal daal di nekkoon léegi nag dañuy xool ba xam ci famille bi kenn mën na cee yëkkati kàddu ñu xool bilaal Euh, ban anam la ñàkkee bakkanam ak kañ lañ ko mujjee gis ak Bilal ban xale la meloon ba xam nangu woon na jàng wala yooyu lépp dara du leen ci ump bu ñu duggee xuus tuuti euh, ci li nga xam ne moom mooy famille bi ñu jëm cee yëkkati kenn kàddu ñu def nii tuuti ñu xool ci famille bi kenn kenn mën cee yëkkati kàddu ñu sekk ak ñoom waxtaan soxna si ku ci yëkkati kàddu ñu bëgg xam euh, kan mooy Bilal ak Bilal nan la meloon. salaamaaleykum soxna si. soxna si mën nañoo xam euh, Bilal kan la euh, lan ci moom. non dañoo dañu bëggoo xam Bilal kan la ci moom. non xam naa ni metti na waaye bësanteelu xol bi rek euh, kan mooy Bilal ak nan la meloon ci yéen. Hmm? Hmm. तमाम नहीं को मैं निकल आज कर दी वो नहीं ci kër gi ku ci bër ci dem bu njaay salaata ba le paas sama rakk ji ñu tudd salaata lu ne moo ñu ko dawa daw lu ñu bilal mu daw jënd lu ñu bilaal mu daw ñu ci root ci kër gi lu ñuy liggéeylu ci kër gi am ci kër gi du bañ day dawa dawa dawa daw ba suñoo bañal ñun ñii ay magam man mii barki démb rek ba may ñibbi moo ma gunge ba si imaamu Jolof mu may tooñ naa ma nga maa fay ba ma gunge la ba sa kër yaral la say bagaas euh, Bilal kañ ngeen mujjee gisante yéen ñaar eh, àllarba la ñu mujj gisante àllarba ba la paase. Mhm. tey la am une semaine. Mhm. tey jii la am une semaine la ñu mujj gisante maa ngi moom mooy ñibbi moom sama tudd mu am oto mu ànd ak sama doom bu ndaw ji indiwaat ko ci kër maa ngi koy tooñ naan xool tali bi sama doom waaye bi daal. yàlla na xëppee àjjana barke euh, ci anam bi nga xam ne bilaal ba ko euh, yëpp xaw ma si dara ndax man damaa nekk sama kër di sëy boo ma fii ñëw sax kenn waxuma dara damaa ñëw rek gis nañ ñi xam ne am nañ xew waaye sama borom kër ñoo ànd ba si tali bi waaye waxuma dara dani ma demal seen kër rek waaye ba ma ñëwee laa fekk nit ñi nekk ma laajte lan moo xew ni may dalal di ma dalal bu ñu Bilal mo gañu waye man ma sé dara. Bilal mën nañoo natt ay âge ci nan la tollon Bilal xalé la 2008 la juddu 2008 la juddu xalé bu tuti la ko sama caatu yaay moom la ngi am ci doom ñaari doomu góor rek la sama yam ñu magam. Vamos agora. Agora, agora. Kaya lang yun. Kaya alam mo yun. Ito ka lang. aja mi ngi noonu kooku nag euh, sërëm la euh, ci ki nga xam ne moom mooy Bilal doon yëkkati noonu ay kàddu euh, di def seede ki nga xam ne moom mooy Bilal boo gisee famille bi ku ci nekk ñi ngi yëkkati ay seede yu baax yoo xam ne di ko teg ci ki nga xam ne moom mooy Bilal nangu gi nga xam ne nangul na ko famille bi ak nangu yónnante beeg lépp nekkoon xale boo xam ne benn kàddu gi lañ koy témoyel fi nga xam ne moom mooy ci biir kër gi euh, ñu gën a dem ne tuuti xuus euh, xool euh, kenn tamit ci ci ci famille bi dañu ñëw laaj ko nañ ko nañ déedéet mi ngi door a egsi yaay booy ni ngi door a egsi dañoo bëggoon a xam tuuti rek dara tuuti rek ci Bilal yaay booy. Bilal daal sama kër a ngi nii fii laa dëkk. Mm-hmm. man ak ñoom ñu dëkkeen dëkkeen bu rafet famille bi amul benn problème du ci yaayam du ci papaam du ci xale yi bilaan muy xale bu yaru bu respecté ay mag bu respecté ñëpp ñun mosuñu koo àtte ci koñ bi kon nag tey bu ñu xëyee tey ni ñu bilaal génn na àdduna dañuy am lu ñu lu ñu métti te xamuñu yan fan fànn la xamuñu ko ñun daal ba ñu ñëwee man daal ba ma ñëwee ñu ngi tëdd nii di jooyoo jooyoo laa ci am gisuma ko dégguma ko xawuma lan la métti nañu trop nag ndax xale bu yaru la xale bu baax la xale bu léejul xale boo xam ni cambal cambal wala yeneen yi xale yi di def déedéet dafay yaru jàq ji nekk fii bilaal moo fay jiitu fajar moo fay nodd tey moo tax suñu xol yi dafa tooy ñëpp am métti tey ñëpp am métti mu doon xolu yaayam mu doon xolu papaam ci wetu papaam ci wetu yaayam musul am benn problème musuñu am benn problème ak papaam ak yaayam dañu ko bëgg mu suma koo àtt ci koñ bi sama kër a ngi nii man Jeanne Diop laa tudd kon nag tey jii man am naa lu ma métti suba ba léegi ñu ngi jooy ndax xale bi génn àdduna ci anam yoo xam ne xamuñu yan anam la loolu daal laa ci mën a xam laa ci mën a wax ndax xool tooy na mënuma wax dara du dul naqar la am tey ndax xale bi dafa baax anam yooyu sax euh, ñun daal waaw bilaal feebarul bilaal daal feebarul xamul xawma daal ci ab yan anam la demee mais bilaal feebarul ndax ñun daal dañoo ñew ñu ne bilaat genn na aduna ñun daal ñu nekk di joyo gisuma ko it duguma fenn xooluma ko gisuma ko waaye feebarut li ñu mën a xam daal mooy feebul te xale bu baax xale bu yaro biig ci guddi rek mu ngi xale kaf ak foo ak ree ca xale musul am benn problème problème mu feebarit musuma koo gisee musuma koo gis mu feebar feebarul daal feebarul sapeur moo ko jël si akam kan? waaw gis nañ fi auto sapeur est ce que ak du ak auto police man daal fii laa romb rek dugg ci biir di jooy samay jooy xawma ndax police la ak wala sapeur xawma la ndax waye fi la rombo auto bi dugg mhm. lo rek la ci am lo rek la ci am sama gorobi sax mo joge mars ñew ne ma maire kay nee nañu pilaal na ma beut sama sama borom kër beut ñu ñew fekk kër bi fess del sama kër ngi ni lool daal lañ ci am am nañu tay nakar lool ndax xale bi xajoon na fi ta dafa baax yaayam baax papam baax ay marem jai ak wié dañoo yar seen doom yi mhm. ñun ñu ngi ni sës ak ñoom rek mais xale yu yaru lañu yu baax lañu moo tax ci suba ba léegi koñ bi ñëpp am naqar ndax lëjaluñu kenn sonaluñu kenn ñun ñooy ay dëkkandoom ñoo sës ak ñoom rëkk mais te bar fakal macha allah papa ji yaru na yaay ji yaru na yar na ay yar nañ seeni doom it moo tax ñun ñu am naqar ñun dëkkandoo yi te xale bi ñëpp la respecté ñëpp la respecté loolu rek laa ci mën a wax xool bu metti rek la ñu am tey naqar Euh, mi ngi noonu xol bu naqari euh, liñ leen koy fàttaliku fii la xewee fi nga xam ne moom mooy ci Silma euh, nekk ci diwaanu Thiès bokk ci commune bi nga xam ne moom mooy Thiès Ouest ki nga xam ne moom mooy monsieur le maire Ousmane Diagne jiite ko. Thiès Est mi ngi nekk ci commune Thiès Est bi nga xam ne maître Ousmane Diagne moom moo ko jiitee nekk fi nga xam ne moom mooy Silma soriwul dara ak li nga xam ne moom mooy armeeru Silma yi. koñ bi ngay njëkk a jot avant nga àgg ci armeeru silma yi nga jàdd à gauche boo dawee tuuti rek kër gi mi ngi lay féete a gauche foofu la ki nga xam ne moom mooy euh, Bilal euh, daal di dëkk nag ñu euh, ngi fii ak pamille bi xam naa namit sànq léegi gis nañu ki nga xam ne moom mooy professeur am ñëwoon na fi ak élèves tamit doon indi li nga xam ne moom mooy seen njaal comme ni ko yaay booy waxee euh, coow li tamit euh, mi ngi bëri euh, ki nga xam ne moom mooy Bilal ci anam bi nga xam ne ñàkkee na ko bakkanam waaye famille bi tamit ñi ngi yëkkati ay seede di wax tamit jëfin bu rafet ak nekkin bu rafet bi nga xam ne nekkee woon na ko tamit ak famille bi ba ñi ngi xibaar sax ni bidon yi ñuy gis nii ki nga xam ne moom mooy Bilal moom moo ko mujjee root ci monsieur maître am tamit bi mu dikkee yëkkati na ay kaddu ci ki nga xam ne moom mooy Bilal ont né élève qui xamné élève bu joxé cër la élève bu nango élèves la euh, wul dara li nga xamné mom moy Bilal euh, kon famille Bilal bi am lu leen metti biñu gisé tamit mu ñak bakanam ta xamuñu euh, lan la ñaké bakanam comme niko yaay boy bi waxé gis nañu ni sapeur ñëw na jël ko ak police comme tamit mi ngi nekk ci ay kenn xamul ba Bilal ci lan la ñaké bakanam mom mo taxone Teranga Sénégal fi nga xamné ne moy Silma toppal leen li nga xam ne moom mooy xew-xew bi nga xam ne amoon na fi